Amadou Ba ak ki nga xam ni Macky Sall juboowuñu seen diggante rataxatul ay sëriñ a ngi ci doon dox ay nit a ci doon dox mais kenn mënu ko lijjanti parce que Macky Sall à la dernière minute dafa sentir na Amadou Ba daf ko trahir dafa sentir na Amadou Ba daf ko nara a trahir benn ci bi Amadou Ba demee ci France Macky Sall nekk Europe nekk France buggut a gis ak Amadou Ba boobu Amadou Ba mi ngi comploter avec la France donc euh, loolu Macky Sall yëg ci le multiplier Amadou Ba par zéro ma ne leen nag ñoom ñaar jubóowuñu jamono jooju ba suñu jonn yalla tay yéen ngi koy gisal après euh, xaw magum daara yi am fi ñu dajalo gaay di ma mais ba suñu jonn tay euh mi ngi leer té day gën a né ne Amadou Ba jubóowul ak Macky Sall loolu moo tax Macky Sall di def tout pour mun a reporter élection yi parce que wóolatul Amadou Ba te dafa sentir na Amadou Ba da ko trahir dafa sentir na Amadou Ba li mu waxante woon ak moom defu ko dafa sentir ni Amadou Ba da ko nar a trahir donc loolu moo tax muy def tout pour mun a completé ak waa PDS pour mun a reculer élection yi en attendant mu wut compromis wala mu jaxase réew mi yëpp complètement euh, dem yoonam wax naa leen ni leen Euh, depuis pas mal de temps gisu fenn Amadou Ba ak Macky Sall ñuy ànd bu ñuy in bu Macky Sall di inauguré BRT bi gis ngeen Amadou Ba ngi ci réew mi mais gisu leen fa Amadou Ba Macky Sall mi ngi ànd ak jabaram ànd ak ay militant am di dox ay soxlaam def na dem na inauguré BRT te gisu leen fa son premier ministre Amadou Ba dem na Saint-Louis inauguré ab juma euh, bu mag euh, te gisuleen fa Amadou Ba ba suñu jonn yàlla tey gisu leen benn yoon jamono ji Macky Sall ak Amadou Ba ñu ànd gisu leen Macky Sall bi waxoon ni moom mooy doon directeur campagne Amadou Ba gisuleen ko mu poser benn acte wala benn pas buy wone ni mu ngi jàppale Amadou Ba wala muy wax lu rafet ci Amadou Ba wala naan jàppale leen Amadou Ba wala nangam ci Amadou Ba donc on boo leen xoolee nit bu jiital nit ba pare te waxaloo ko dara lu rafet waxaloo ko lu baax waxu leen jàppale leen ko waxu leen dara donc loolu rek day wone ni amna na rëcc yu rëcc yu am ay gàkk-gàkk wala amna ay rëq-rëq yu am seen diggante parce que nit mënoo ko jiital ba pare munu doo ko promouvoir doo poser benn acte bu jëm à son encontre bu ko mun a valoriser wala bu ko mun a màggal wala bu mun a pousser nit yi pour ñu bëgg ko wala ñu jàppale ko woote woo ko doxoo ci donc loolu rek am na lu muy signifier ci nit yi nga xam ni am nañu xel bokk na ci tamit li nga xam ni moom la ñu waxoon Amadou mooy candidat de la continuité mu ñëw dem ci dëkk yi nii ne leen euh, ci biir xel ne leen du ma candidat de la continuité bu ma ñëwee du ma copier coller donc bu ma ñëwee du ma copier coller mooy wane ne du ma candidat de ko Amadou Ba wax ko pour wax ni Macky Sall euh, déclaré man tam la guerre à Macky Sall woon ko ni mantam pare naa pour la guerre du ma doon ab continuité wu li ngeen fi def wala mu ne ko moo tax mu ne du ma copier benn euh, programme di kole damaa yor sama yëfu bopp donc depuis boobu nag Amadou Ba ngi ci àll bi di daw Macky Sall ngi dakaar boolewu ko ci dara ba conseil des ministres bi nga xam ne am na démb Amadou Ba était quasi absent ñëwul taxawul wootewul jegewut donc loolu it muy conseil des ministres ci premier ministre bu nekk ci biir dëkk bi nga président bi di conseil des ministres ministres yëpp war a ñëw nga lànk ne doo ñëw nekk diggante ay tàmbaak ak Ziguinchor ak Touba ak nangam naa di dox say soxla yaakaar naa ni loolu lépp ay firnde la ay mbir la yu wane ni Amadou Ba euh, ak Macky sàll seen diggante neexootut dañuy développé bu baax di wax ni tamit Amadou Ba ci boppam bëri na lu ko metti loolu ci li Macky Sall di poser ay act parce que nee na mënul comprendre ay nit yu jege Macky sàll lànk ne duñ ko jàppale ku ci mel ni Mame Mbaye Niang am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk biir présidence ñu nekk di ànd ak Macky Sall te Amadou Ba rek lañ bañ donc Amadou Ba moom laajte na lan moo tax Macky Sall nan la ko mën a jiitalee ay nit yu jege Macky Sall di ko xeex ay nit yu jege Macky Sall di génn flagramment di di di ko yàqal wala di ko taxé du n'importe quoi wala di ko jiiñ ay mbir moom mënul comprendre nan la ko Macky Sall mën a jiitalee mun a accepter ay noonam Macky Sall di ànd ak ay noonam di ànd ak ay nit yu ko bañ ba ba di ko assumer di ko wane donc loolu rek moom Amadou Ba xam na ni diggante moom ak Macky Sall rataxatul waa Benno Bokk Yaakaar tas nañ mooy lu ñu leen di eh, yàgg a ñaanal rek ña ngay reyante seen biir loolu suñu yoon nekku ci ña ngay dóorante ña ngay màttante ña ngay lekkante donc foofu moom dara baaxatu fa léegi comme Macky Sall xam na ni nag ci groupe am ak ci partem parti ba yàqu na parti ba tasaaroo na ña ngay lekkante ka rayante donc muy jéem a xool ni fii élection bu fi amee Amadou Ba dinañ ko dóoral dóoral dóora dóora dóor ba toog ci kawam puudar ko sëlam ko mëqaloo ko suuf donc muy jéem a xool nan la mën a def pour reculer élection yi pour mu compromis wala xool lu muy discuter pour mën a rëcc wala pour mën a raw mais moom ay élection arrangé wu ko parce que bu ko defee dinañ dóor Amadou Ba ba muy ba muy bëgg a dee ñu ko dóor ba mu faatu te bu boobaa nag moom dootul rëcc loolu moo tax muy jéem a pexe nan nan la mun a def pour mun a arrière élection yi parce que moom ak Amadou Ba comme ay xaj muus kii daa jaar gauche kii jaar droite Amadou Ba ngi fii ci biir dëkk bi Macky Sall di def conseil des ministres Amadou Ba tegu fa tànk depuis France nag la xeex ba commencé parce que Amadou Ba dafa dem France jaar ay euh, RFI euh, jaar ay TV5 jaar ci télé commencé di négocier ak euh, waa France te Macky Sall yëgu ko boo ko Macky Sall yëgee nag noonu la fa jógee da ko fa ñu ko na yàq bu naqari lijjantiwu ko dem di ko xaar Sénégal depuis bu mu ñëwee Sénégal Amadou Ba mi ngi daw ne xaj ñi sax duggu dakaar gis ngeen ko dem na Ziguinchor taxawaalu fa jaar ca pont ba euh, entre Casamance ak euh, Gambie dawaat <laughs> bërki dem dégg ngeen ko ca Saalum ca bu mu paree ma nga ca Touba nee na lànk na du dugg dakaar waaye nag nu mu metti metti dina dugg dakaar ndax Macky nga ko fay xaar lu mu metti metti metti dina fa dugg léegi nag ma ngay waajal démission am di leen ko wax muy fan yii boo leen gisee démission Amadou Ba nee na euh, bu delloo dina déposer démission am pour premier ministre pour concentrer wu ci présidentielle bi donc pour wane ne leen rek ngeen xam ni ñoom ñaar ñooñu ña ngay lekkante ña nga reyante Macky na comme xam na ni bu fi organiser élection dinañ dóor Amadou Ba ba mu faatu donc loolu moo tax fu mu nekk nii te gis na ni Amadou Ba da donc mu ngay xeex Amadou Ba loo tax moo tax fu mu nekk nii mi ngi def la tout possible pour mun a reculer élection yi bokk na ci nag mu ngi waajal aussi ci ay pexem nan la war a mun a négocier ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko parce que wóolatul Amadou Ba xam na ni Amadou Ba ñoom ñaar jubawuñu forcé nañ ba son mais ñom ñaar seen rab yi ànduñu donc té Amadou Bangi wadjal pour mëna euh démissionner en tant que premier ministre concentré wu parce que euh, même français yi jël nañ ko interview wax nako prononcer na ci prononcer na ci donc dafa fas yéene wax na ci report bi tamit nee na kenn du fi reporter élection yi donc euh, mom Amadou Ba mi ngi artu Macky Sall ci report voilà mi ngi koy artu sax ci ay report parce que euh, mom Euh, loolu lay bugg a euh, forcer donc euh, nee na daal moom nañu nangul ci report yi te moom xam ne ni ku munul gañee ci quartier munoo gagné sa munoo gañee cib dëkk. donc moom Amadou Ba xam na bu baax a baax a baax a baax moom nañ dem nañ dem bëre ji ñu dóor ma ba ma pënd takk suuf ñu sëlëm ma dóor ma ay ay kawoo ku kawoo moom moom loolu lay waajal moom mi ngi waajal ñu dóor ko ku kawoo moom moo ko gënal sax. Euh, ñu reporter élection yi mais Macky Sall moom pour pour l' dafa bëgg a négocier ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. ci ñaar ñaari mbir nee naa leen soit mu reculer élection yi pour mun a xool nu mu éliminer définitivement Ousmane Sonko ak kii di Diomaye au cas buñ ko nangulee mi ngi préférer une discussion benn euh, waxtaan aimable boo xam ni. entre moom ak Ousmane Sonko yoo xam ne am na ay waa société civile yu koy dox jamono ji pour mu meuna waxtaan ak Ousmane Sonko mu assurer ko ay derrièream pour buy dem Ousmane Sonko duko topé dara mom ak ay nitam parce que wolatul Amadou Ba té mi ngi wut ben ici heureuse té lolu mi ngi ci xol ko nit meuna jappalé mu meuna waxtaan ak Ousmane Sonko ba ñu retrouver wu ñu trouver ay consensus mu meuna euh dello Ousmane Sonko ci ay droit am Ousmane Sonko ci leppam libéré détenu politique yi am jàmm ak salaamam nga xam ni bu Ousmane Sonko bàyyi leen ak ay élection mun a dem ci jàmm donc loolu it man ngi koy dox nee na bàyyiwu ko moom Macky sàll bureau am bàyyiwuñ ko pour waxtaan. léegi nag lu ci luy wane loolu mooy démb lañ xalaat commission d' enquête parlementaire bi contre conseil constitutionnel muy li une première fois dans l'histoire du Sénégal gouvernement musul am Sénégal ñu nangu. ñuy jàpp ay juges yu nekk conseil constitutionnel di leen yobbu ay fi nga xamni mom moy assemblée nationale mi ngi a am dans l'histoire ñu ngi doog am dans l'histoire ay conseil constitutionnel bu def li ñuy def ñu jël leen yanu leen comme ay prisonniers <laughs> yobbu leen assemblée nationale ñu ouvrir ben commission d'enquête parlementaire contre un conseil constitutionnel c'est du jamais vu lan moo tax Macky Sall accepté ko lan moo tax Macky Sall nangou ay jugeem yu choisir conseil constitutionnel sept sages ñu jël leen di leen yob assemblée nationale pour juger leen Ha ah, loolu ku ci nek bo amé xel war nga xamni fi ya anguille sou roche banditisme mi ngi fi ni compromission mi ngi fi euh, euh amna na deal bu fi nek donc loolu gouvernement musu ko accepter parce que loolu insulte le troxta troxtànge la ñu japp lu tey ni ay conseil que juge conseil concerné di leen yobbu ay fi nga xam di ouvrir ay enquête parlement euh, d'enquête euh, commission d'enquête parlementaire pour acter ay juge <laughs> surtout lu tey ni conseil concerné haute juridiction euh, d'un pays donc loolu lépp pour wane ni pour juger ay juge donc loolu musul am musul am ci musul am ci aduna bu démé ba Macky Sall di nangou ñu ouvrir commission d'enquête parlementaire contre conseil constitutionnel contre ay juges. moy wane ni ah waji ji na sax pour gis nga jël ay juge jox leen ay ku nekk ci nek un milliard moy Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Koulibaly pour ñu accepter ñu yobulen assemblée nationale pour ñu mën leen gatch ay ay faute grave yi ñu def pour mun après dissoudre wala nous nous démissionner soit nous démissionner wala nous dissoudre li nga xam ni conseil constitutionnel donc muy complot bu doy complot bu compliqué sax boo xam ni gars nous ñu ngi koy pour nous reculer élection yi Macky Sall le mener jël temps négocier ak ki nga xam Ousmane Sonko pour mun a bàyyi fële Amadou parce que xam na ni yoonu guerre boobu noonu du arranger arrangé créer fi bàyyi fi guerre. bu bu basculer dëkk bi ci ab guerre loolu du ko arrangé donc ma ngay xool nan la mën a defee nee nañ leen jot jot na dox ay pas nag pour euh, proposer Ousmane Sonko pour libérer ko pour mu dem euh, bitim réew pour mu dem Europe loolu njëkk na ko dox Ousmane lànk ba bañ yónnee na ay nit comme ni ñu ko yàgg defee pour ñu dem wax ak Ousmane Sonko ne mun na ko bàyyi pour mu dem bitim réew en attendant mu libéré détenu politique yi Ousmane lànk ba tëdd ci suuf ne du ko nangu tey du ko nangu suba. loolu ngeen bàyyegum ci xel donc léegi nag li muy bëgg a defaat mooy reculer élection yi pour xool nan la mun a waxtaaneek moom pour ñu trouver ay compromission pour Ousmane mun koo bàyyi ci jàmm mu bàyyi Ousmane Ousmane tam bàyyi ko ci jàmm mu bàyyi euh, tëddinu politique yi Ousmane bàyyi ko ci jàmm moom mu mun leen bàyyi organiser ay élection ku mën sa morom duma moom comme ça ñu assurer ko ay arrière kenn du jàpp njabootam kenn du jàpp ay nitam kenn du jàpp ñu détourné ni ñu parce que it buggul bàyyi ni réew mi organiser ay élection te ñu topé ko mom ci mom Macky CPI ay dossiers yu fa nek ay plainte internationale yu fa ah lolu mom xamné ni dina parce que mom buggul nangul accepter euh, ab euh, du Sénégal war ko ci nervi euh, contre l'humanité haute trahison etc., etc. donc beaucoup ko gens à rio moomu organiser une élection l'air, transparente démocratique libre ex inclusive ah, ah, comme ça ku gagner mobile bàyyi la après mon waradem a dem dàqanteeg état bu ko a crime loolu moom facile yéene vous ko bàyyi donc soit mon arrière élection yi le temps négocier ak dom surtout Ousmane Sonko xool nan lay def pour Ousmane Sonko mun ko assuré ay arrière am ne du ko toppee dara euh, plainte yooyu noonu yëpp yu nekk CPI yeeg yi ñu mus a def yëpp dañ koy retiré comme sax mu mun a dox ay soxlaam nekk ci jàmmam mun a dem Amérique mun a dem fu neex dem dëkk ji faak njabootam. donc loolu moo waral jamono ji euh, ñu teg seen commission d' enquête parlementaire waa Benno Bokk Yaakaar waa PDS et cetera et cetera pour jéem a xool nan la ñuy daane juge conseil constitutionnel yooyu noonu soit ñu démissionné wala ñu. tasco comme ça conseil constitutionnel d'autres am te bu conseil constitutionnel amul multiplié en attendant ay élection ñu fa am ngeen xamé nako ngeen xamé ko donc ñi pousser pour euh, démissionner le conseil constitutionnel pour faute grave etc etc pour faute lourde reporter les élections donc euh, gis ngeen motax ñu bari genn nañ wax ci non à la mise à mort du conseil constitutionnel ngeen bàyyi ci xel pour ñi nga xamni euh amuñu accès ci information yooyu marito ñoo ñaan wax na ci né lañ né na non à la mise à mort du conseil constitutionnel ki nga xamni moy Pape Alé wax na ci ki nga xamni moy mooy mbouk wax na ci ki nga xamni ñi nga xamni ñom ñoy ño nek ci état euh, ño nek ci réew mi te xam nu mu démé te xam ne lu ñu gars yi waajal ñoom ñëpp ñi ngi alerté ci conseil constitutionnel ne boulen ray conseil constitutionnel pour une première fois dans l'histoire ñu bëgg a tënk lu ni ay juge conseil constitutionnel yóbbu assemblée nationale ouvrir ay commission d'enquête parlementaire pour liquider l'en, éliminer l'en, tas conseil constitutionnel wala démissionner loo len ba jël ay juge fay l'en, ki nga xam ni Cheikh Ndiaye un milliard ki nga xam ni Cheikh Tidiane Konibali un milliard pour après boulen l'en di éliminer nous xam duñ ci boole wax duñ ci boole coow donc Macky Sall a senti une haute trahison de Amadou Ba donc wax naa leen ko ne len inauguration yi gisu len ci Amadou Ba fu Macky Sall dem gisutu len fenn Macky Sall ak Amadou Ba àndatuñ ci dara du conseil des ministres léegi da absent Amadou Ba préparé na dossier euh, pour mun euh, débarquer wu pour mun a ci néna néna bu dello mi ngi bu dello je vais m'entretenir avec le président pour la jox ko démission am ci premier ministre parce que jubootuñu àndatuñu nee na moom Amadou Ba euh, dina euh, dem parce que double casquette comme nu mu koy ñoom ñoom dañoo mën a lay double casquette am de premier ministre et euh, de candidat à la présidentielle nee moom loolu mënu ci ànd donc une position loolu position bu mu ci am moom mooy bu delloo dakaar comme day daw Macky Sall jamono ji ñimeetu koo gis nee na bu delloo dina ko jéem a déposer

éliminer waa conseil constitutionnel ci assemblée nationale te démb rek la ñu wax ne dañuy ouvrir commission d' enquête parlementaire tey ña nga fa nan dañuy xool mbir ya ak nan la ñuy def pour éliminer ki nga xam ni ñi nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, élection yi. donc daal wax na yàgg naa leen ko wax ne naan depuis France Macky Sall ak Amadou Ba ngay rayante Macky Sall ak Amadou Ba ña ngay rayante Macky Sall ak Amadou Ba ña ngay rayante xam nga man samay wax nag ay jalu muus la waa wàqi rek gis day. loolu moom <laughs> yaakaar naa ni euh, du may waxantu ba ma ko waxee waa PD APR commencé monté na xool leen day ki nangam ba léegi fu mu nekk fu jonn yàlla tey ña ngay reyante ñu ngi dóorante ci suuf guerre froide bu tàng fa am te nee naa leen loolu moo tax Macky Sall wóoluwul Amadou Ba Macky Sall spoir espoir Amadou Ba te nee na Amadou Ba da ko trahir donc il est prêt à tout pour éliminer Amadou Ba mais du nangu bàyyi fii <laughs> Amadou Ba donc moo tax Amadou Ba fu mu nekk nii ma ngi daw Macky Sall comme lu day ni conseil des ministres ñëwoo fa nga nekk si biir Dakaaru Njaay di wër di tàmbaambaalu dama ne Amadou dellul Amadou dellu jàppaleen ko mu dellu génne leen ko ci àll bi Amadou jo génneel àll bi te dellu Ndakaaru Amadou ba say ñaari jabare ngi Ndakaaru bàyyil bàyyil dëkk bii ngay wër ba Ziguinchor ñu war ñu waxate nga dem nga dema ca ca Tamba Bundu ñi waxate nga daw dem dem dem Poroxaan dawati dem tuub Amadou ba dellul Amadou ba ñibbil ame Amidou Ba ñibbil ñibbil ñibbil capital ba delul ta capital ba ngir yàlla lee war a rasuuli delul capital delul capital capital nga dëkk fa la say jabar nekk delul capital lan la lu xew looy daw dugg ci àll bi nii di wurit wurit ci daw rek di daw foo jëm delul dellul lu day di conseil des ministres nga lànk te nga nekk président assemblée nationale nga ne doo fa teg tànk de président te nga nekk premier ministre du moins premier ministre du Sénégal ñuy def lu mel ni conseil des nga war ko présider nga lànk daw daw ne doo fa taxaw <laughs> di nga delu nak di nga dellu de di nga delu mbaa ngi ñibbi gi ne mom kay di nga delu di nga delu de voilà donc fu nek ni Macky Sall veut se débarrasser impérativement de Amadou Ba et cherche une alternative jamono ji pour vous dire vrai Macky Sall veut se débarrasser de Amadou Ba et cherche une alternative une issue heureuse te xamna ni ci Ousmane Sonko rek lako mëna amé mom kessé waaw loolu motax ñom ñi ñiy ci kaw di ëf ci souf gis nga Amadou Ba comme média bi da leen a jënd ñi mel ni kuy jéebaane Ousmane Macky Sall ci ci ci ak askan wi di ñu mel ni ay Omar Sow journaliste ñu mel ni ay Madiambal Diagne naan y aura des élections foog ñu def ay élections bu kenn repoussé ñooñu ñëpp nag ay éléments wu Amadou Ba lañ yoo xam ne dañ leen a fay pour ñuy liggéeyal Amadou Ba te xam nañ ni jamono ci Amadou Ba jeexal na ca xam nañ ni ñoom xam nañ ni Amadou Ba des élections dañ koy dóor mais lu tax ñu ciy forcé ñu mel ni ay Madiambal Diagne ay Omar Sow ak yooyu nekk ci médias yi ne di di. critiquer démarche Macky Sall bi ci li war a tourner ay élections yi wala mu ko dëpp parce que xam nañ ni ah ñoom loolu arrangé wu leen xam na xam nañ ni am na lu Macky du waajal donc Macky Sall compromis lay wër Macky Sall fu nekk nii waxtaan ak Ousmane Sonko lay wër xool nan lay mun a arriéré élections yi pour mun a waxtaan ak Ousmane Sonko ñu mun a retirer plant yi nga xam ne dañ doon wax naan faalewuñ ko ay yi plainte yi nga xam ni euh, Juan Branco defoon na ko euh, euh, Aliou Sow du moins mu ne Umar Sow Aliou Sow donc loolu lépp boo ko gisee euh, dafa am loo xam ni euh, bëggul organiser ay élection demee noonu mujj ci ay moom ak ay nitam mujj ci kaso bi te nee naa leen ñimewul kaso rek parce que bu ñu koy wax Abdoulaye Wade di wax waxu kaso daf jooy na jooy yi metti ba jaxase ay maraakisam bu mu génnee ci kër sëriñ ba jël ay maraakisu jàmbur ñëwee maraakisu weex jël ñaari marakis gauche la génne Macky Sall jour boobu bu ko Macky Ablaye Wade di menacé euh, ñu yóbbu ko ñu ne dañ koy convoqué euh, dik ba mu demee gis sëriñ ba euh, xalif général des Mourides bi fi nekkoon ci jamono jo bu mu génnee ñaari marakis gauche la génnee gauche droite la indi génne ñaari marakis gauche dañ ko mujj wokk na ko pardon euh, mag yi ne a ah, ñu ne ko summil sama marakis nga sol ñaari gauche nga sol donc ci la ko remarqué ni moom ndakate ñaari marakis gauche ndax rek parce que dafa ragaloon mu ne sëñ bi na ci wax ngir yàlla sëñ Baara Mbàkke euh, euh, di di di ko ñaan pour mu dimbale ko ba mag Abdoulaye Wade du ko tëj ci kaso yi mu mujjee jaxase ñaari marakis gauche

ay nitam yu ko jege di saaga Amadou Ba ako xeex Amadou Ba ak sànni Amadou Ba ay briques donc loolu lépp waa ji mujjee daw Amadou Ba mooy wane nii foofu am na lu fa doy waar lu fa am te ku xam Macky ci bandeem ci ku xam Macky ci bonam ku xam Macky xam ni mi ngi ay solution politique te kenn rek la xam ne moo ko fu mën a sauver te kenn la xam ne bu élection amee dina leen dóor duma leen toog seen kaw sëlam leen suuf mooy Ousmane Sonko ki nga xam ne ñoom jàpp ñu woon ni mi ngi préparer dara ñoom ñu nekk ci ay complot nekk ci ay fen nekk ci ay pexe ah da yaakaar naa ni pexe dëgg ko mun moment boobu ñuy nekk ci seen i pexe ak complot ak fay ay magistrat di empêcher ay candidature Ousmane Sonko boobu Ousmane Sonko bàyyi na leen fa ko dem ci yeneen niveau ba préparer équipe am lépp daf ay video wax lépp sincèrement Ousmane Sonko du nit Ousmane Sonko ñoo doon ko doon ko wutal ay piège ay ndëgg sërëx jël seen temps yëpp di di waajal ñu tourné gis Ousmane Sonko ci asamaan sa muy naaw ah te ñoom ñu jàppoon ni ki ay tànk la yore ñu tourné gis ko ay laaf muy naaw ah loolu moo leen jommal fu nekk nii moo tax démb rek la ñu wax waxu commission d'enquête parlementaire tey ñu yóbbu ko assemblée nationale. donc muy lu doy waar ngay waajal nit. di ko piéger ndax ay tànkam nga ko gisee ndaxte daa yori laaf nga pare def say piège def lépp teg say ndëgg sërëx teg say xob teg ci lépp foog ne waa ji day dox nga tourné gis ko ci kaw muy naaw maare détaali loolu jommal leen ci lañ daanoo xam démb ba léegi toog nag xamatuñ niñ def ñu daw profito pour une première fois dans l'histoire lu musul am Sénégal ñu jël lu day ne ay juge conseil constitutionnel di leen yóbbu ouvrir ay commission d'enquête parlementaire assemblée nationale pour éliminer leen fa pour toroxal leen fa loolu musul am ci Sénégal bu Sénégal amee ba suñ jonn yàlla tey musul am ci régime mu nii Senghor nii Abdou Diouf nii Abdoulaye Wade kon bu demee bay am nii Macky Sall pare pour liquider ay juges devant l'Assemblée nationale pour fenloo leen pour toroxal leen pour éliminer leen pour lib dàq leen wala pour ñu démissionner ah loolu lépp lu ko waral mooy bu yaakaaroon ci mbërëm boobu mbëru pitam boobu ah yaakaar naa ni lii yëpp du ko ci fekk waaye nu mu mujjeeg mbërëm moo tax pexeel yàlla yor ay pexem yow pexel rek yàlla moom wax na ko nee na pexe leen def leen seeni pexe waaye boo leen paree man ma def sama pexe loolu nag yàlla moom moo ko wax te mi ngi ci alxuraan donc loolu leer na def leen seen i pexe yéen nit ya fexe leen seen i pexe boo leen paree ma pexe samay pexe te bu ma pexee samay pexe mën seen i pexe kii nag ñu ñu ñu doon jéem a kàmbal muy Ousmane Sonko ndax tànk lañ ko yaakaare woon mu na nag yor ay laaf naaw ñu jommi jaxle daanu xëm ndax yaakaaruñu woon ni waajooju yor nay laaf foofu la mujjee moo tax fu mu nekk nii jaxa jaxasoo nañ trop trop trop trop trop di fexe nag nan la ñuy def pour am issue euh, heureuse wala une solution politique ci waxtaan ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko te loolu bokk na ci seeni programme ni xool na la ñuy reculer élection yi pour mën a dem toog ak Sonko waxtaan ak moom. mu comme ça nag mu mun a bàyyi gaynde gi mu génn affronter gars yi lekk lekk lekk euh, àll bi yëpp rajax àll bi gaynde le roi de la forêt. muy Ousmane Sonko loolu nag na fu nekk nii balaa mu koo bàyyi bugg na en attendant reculer mbir yi même bu dee six mois mu dem waxtaane gaynde ga xool nu ñuy génnee détenu politique yi nan la ñuy génnee ki nga xam ne mooy usman Sonko waajal ko nag bu boobaa nag moom <laughs> mu xam ne ni ah, gaynde moo mun ci àll bi yëpp. donc euh, lii nag loolu euh, moo waral lii. ngeen déglu gars yi bu baax loolu moo waral lii ñi xool nuñ defee ay li nga xam ni mooy report muy waaj ñuy waajal report parce que dafa Macky Sall dafa nekk di aménager une sorti heureuse te loolu munu ko waxtaan ak Amadou Ba parce xam na ni Amadou Ba munul gagné bu ko wóoroon wér te Amadou Ba mun na gañe kon bu boobaa lii yëpp du ko ci fekk. ay arrière ay élections à un mois des élections ngay ngay jéem a xool noo arrière ay élections noo wutee ay porox ndoll yaakaar naa ne boo gëmoon sa mbër boo jiitaloon sa mbër doo toll ba suñ jonn yàlla tey nga naan da ngay wëral sa mbër naan da ngay raka ak nanga da nga naan da ngay yóbbu sa mbër yaakaar naa am na mbër yoo xam ni ñoo daq bàqu daq yuuxu dàq jaay perek naan bu ma la jàppee ba mu des deux jour trois jours ñu génn bandaas seen loxo yi ba mu fees tepp nan ay dañoo foxoj jak dañ doon door seen jabar seen jabar pous ñu door ko ci bibliothèque ba lo wala ñu door ko almoire ba loxo ba rekk sama loxo dafa dam mak dama doon entraîner dama def faux pas sama tank ba ñu def jaral na leen sax ñu plâtre ko donc fu nekk ni wa APR wa Benno bok Yaakaar ña ngay plâtre seen tank ya ña ngay plâtre seen loxo ya ña nga nan ay dañoo am ay rekk rekk ay seen tank bi mo seen depuis démb ak tey lekkuñu nalawuñu ña ngay bëgg a daw ña naan ay daj seen dañoo rëq ay bu may bëgg a door kii laa def faux pas nangam ak nang dama ne loolu amu fi kaay leen bëre yéen a fi newoon ne yéen a mën yéen fi newoon ne buñ ko organisé ngeen def premier tour dama ne <laughs> kaay leen ngemb kaay leen ngemb bëre li ngeen fi doon waajal wëre ba wër na këng waxum ak dem dañ tàlli lu waay doon jaay dina lamb bëre rek par force mu ni leen muusaka waane ba bëre bi du am la vingt cinq bëre rek bëre bëgg ko bëre bañ bëre bëgg bëre bañ bëre da ngeen di bëre nag da ngeen ngeen di bëre de di yéen a fi yoroon seen ngaam yu rëy yow président Macky Sall nga naan yow yaay doon directeur de campagne Amadou Ba Amadou Ba naan da leen di dóor dama leen di dóma dama ne dama ne kaay leen dangeen ngeen foog lépp ay pexe la ngeen foog ne woon jënd ay juge éliminer Ousmane Sonko def seen affaire jël ay parti ngeen naan di ngeen di dissoudre li ngeen doon def yëpp foog ne da ngeen di ñëw dóor gars yi dox seen dox <laughs> démb démb tey lekkatu leen naanatu leen ngeen di daw di wax ay commission parlementaire ak ay nag dama ne kaay leen ñu bëre kaay leen ñu bëre fii doo leen fi damm doo leen fi foqet doo leen fi daw da ngeen bëre par force doole mbaam bëgg bëre bañ bëre di ngeen fi bëre nag le 25 bi lamb gi day am sénégalais yépp taxaw nañ jënd nañ béyee fees nañ tep tep tep dama ne bëre day am laa la wax Macky Sall bëre day am de dinañ bëre de loolu moom munoo muusaka waade ba doo leen bëre di ngeen fi bëre di ngeen fi bëre de di ngeen bëre de wala ñoom ñoo leen ko di ngeen bëre de voilà loolu nay lay leer li ngeen doon def noonu wóolu ngeen sa kaa leen bëre loolu kese lañ leen laaj voilà ma nga noonu te dingeen bëri nag parce que peuple bi nee amul benn recul munu leen fi muusa ko wax de ba reculer ngeen bëri di ngeen bëri Sonko amul benn compromission bu muy dafa kenn Sonko du jaay mukk askan wi ndax intérêt am du mus a toog ak wax Sonko ku ko xool xam ni parewul sax pour waxtaan ak Macky Sall ndax même li nga xam ni mooy collectif boobu nga xam ne dafa préparé woon pour def ay plainte yóbbu ko ci Macky Sall Sonko dafa génn démarqué wu ne bokkuma ci ànduma ci binduma plant nekkuma ci donc Sonko musul jóg naan day négocier ak Macky Sall musu ko jéem bëggu ko Sonko wax na devant tout le monde ne lu mu gën a rëccu ci àddunaam lu ko gën a metti ci àddunaam mooy bés bu mu toogee Macky Sall foogoon ni il de bonne fois pour ñu waxtaan ci affaire Covid 19. mooy première fois bu Ousmane Sonko toog ak Sall te nee na moom la gën a rëccu ci giiru dundam kon kooku caaxaanut. xam ngeen ni kooku ku koy xalaatal ay compromission ay kaay ñu waxtaan ñu xool nan laay def pour man ak sama waa dëkk wala sama waa gox wala ñi ma àndaloon nga bañ leen toroxal ma Macky Sonko nee na loolu la gën a rëccu ci giiru dundam. toog boobu mu toog ak Macky Sall te dafa yaakaaroon ni rek il était de bonne foi dafa parce que foofu pandémie moo amoon mu ñëwoon pour waxtaan ak moom ndekete loolu yëpp affaire mafia la Macky a rëccu ci àddunaam kon ne Macky Sall bu yaakaar ne Sonko mun nañ am compromission ba mu dem di ci société civile bi di leen yónni pour ñu dem waxtaan ak Ousmane Sonko ay kaay ma jox la nga génn réew mi en ñu calmer mbir ya ma reculer élection yi après ma indiwaat la ma delloowaat la si say droit ma delloowaat la ca organiser ay élection transparente libre nga bokk ca nga loo gañee yooyu yëpp compromission la dama ne Sonko du nangu loolu ay nit ñoo ci dee ay nit lañ ci ray ay nit lañ ci toroxal ay nit lañ ci tiire ay nit lañ ci disparaître loo loolu yëpp fàttewuñ ko ay crime de sang ay crime foncier ay crime financier yu kemtane yu doywaar douze ans yo xamni de destin maléfique yu doywaar du sénégalais dundou dund loolu Sonko du ko musse a compromettre doomu adama pour protéger leen pour sauver leen ndax tay ñun ñu ray ay papay jambour lañ ay doomu jambour lañ ay rakku jambour lañ té dañoo am ak ak ay yelef Sonko du musse compromettre ak kenn ci mafia politique wala solution politique bo xamni jaral nako mu sank ay ñi nga xamni dañoo ba dé ci ñu rey leen ci ñii ñu toroxal leen ci ay niru bi tiire leen ay balu fetal quarante cinq milliards en armement yaakaar naa ne Sonko parewul pour négocier ko te du ko négocier tey te kenn munul fexe ba Sonko toog ak Macky Sall pour compromettre pour jël lépp li nga xam ne di daj nañ ko jël ko suul ko ci suuf si pour mun a wax ak Macky ndax pouvoir Sonko pouvoir toll ko foofu pour suul deret doomu aadama yi suul ñàkk doomu aadama yi ñuñ taal seen kër yi ñuñ tiire seen oto yi ñuñ taal seen oto yi ñuñ disparaître loo seen papa yi ñuñ disparaître loo ñu jël seen njaboot dugal ci kaso yi Sonko amul daraay àdduna lu ko jar mu jël loolu lépp suul ko ngir parti pour toog ci loolu loolu ko àdduna jaralu ko ko ku ragal yàlla la Sonko ku gëm yàlla la daray àdduna jaralu ko loolu donc kenn mënu ko dugal ci ay compromission ci ay deal ci ay mafia pour mun a toog ci réew kese loolu kenn jaralu ko dara jaralu ko Sonko ci kaw suuf loolu moom je vous le kon ku yaakaar ni mu fu nekk nii mun nga éliminer Amadou Ba Amadou Ba fen rek lay def borom 4 millions de parrainage fen rek lay def 4 millions de parrainage mujj jël ay élus ko pour ñoom ñu ñëw euh, euh, parrainer la ana 4 millions yo France dali xëddeen waa APR ya ko doon défendre sax dañoo mujjee noppi gis nga fen <laughs> fen du du sax lu fen fen teel a xëy dëgg bi dañ ci weesu ko balaa ngoon fen rek lay def Amadou Ba moom fu mu ne ni daa jommi daa jaxle xamul fu muy taxaw daa tiit tiit boo xam Amadou Ba nu mu jaral na ko moom Amadou Ba bañu ci dara moom fu nekk nii Macky sàll xam na ni il est entre le marteau et l'enclume Amadou Ba arrangé wu ko Ousmane Sonko arrangé wu ko. moo tax fu mu ne nii reculer ay élection xool nu mu def pour négocier ak Ousmane Sonko moo ko gën a sax ak Amadou Ba fin bu tragique la am fin bu tragique ndeysaan borom 4 millions de parrains fen du be jaaw ndeysaan gis ngeen fu mu mujj léegi Macky Sall gis ngeen fu mu mujj entre le marteau et l'enclume fenn arrangé wu ko du Amadou Ba du du Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko fël na ak feneen fu doy waar munu ko comprendre Amadou Ba mu pare na pour trahir ko parce que dafa <laughs> ci biir dëkk ba dem ne leen eh man du ma copier di coller te Amadou Ba bañu ci dara xanaa xam ne Amadou Ba daanu bañu dara ba daanu nii mu daanu dem yoonam bañu ci dara <laughs> bañu bañu ko de wallaay ba danaa du ma dee man kese man ak ñoom ñëppay dee man xam na loolu billahi Amadou Ba moo la gën a xam ne du gagné barke rasulullah moo la gën a xam ne du gagné moo tax mu daw ci ginnaaw France moo tax mu daw ci ginnaaw France ñu koy interview Amadou Ba lu muy wax France sax du ko wax fii interview bi France la ko defee interview bi très ouverte, parce qu'on a quand même 20 candidats. J'ai le privilège d'appartenir à la coalition la plus forte, la plus organisée, et il n'y a pas de doute de mon point de vue. Je pense que le 25 février, je serai élu au premier tour. Ah, tu penses premier tour. <laughs> France 24 amul ci espoir amul programme amul dara boo xoolal moom xam na ni dinañ ko yenn ba mu weex tàll ñu dóor ko ci suuf ba du jógati géeru dundam xam na loolu rek moo tax ne ni amul sa wax na ndeysaan de xam na moom rek a des ndeysaan moom kese ak ay nitam amul benn waa Macky Sall bu ànd moom moom ak ay ñetti golom ñooy ci dëkk bi fi mu ne ñooy nee nañ ko mu dellu Dakar ay waay dellul Dakar waay <laughs> dellu Amadou lu ko teree dem Dakar ah mais réew mi metti na dañu ne amatuñ conseil des ministres amatuñ amatuñ ministre premier ministre. dugg ci dëkk bi nga xam ne xanaa oto bu la yónni lu day di conseil des ministres saa waay foo looy taw Amadou dellu Dakar <laughs> dellu Dakar yaa ngi lay xaar de wala dama ragal mu jaaree noonu dugg pitta <laughs> dellu Dakar <laughs> da la rek dellu Dakar te rek nga dee. dellu Dakar dama wuyu sa patron ana sa patron Macky Sall sa directeur de campagne anamu. <laughs> motax da awra da jom bi ne la mais man munu ma je peux pas comprendre li Mame Mbaye Niang di ma li mel li xamee après ñibi del delu palais di tok ak Macky Sall mais c'est pas possible hein mom fu ne nii Macky Sall traître la ma ngay tok fu ni Macky Sall traître la nan la ay nit yu koy saga di and ak Macky Sall ay nit yu koy saga tok bir palais liggéeyee bir palais ñu mel ni ñoom Mame am ben ponkal bo xamni ni ay milliards la yor di ko jox ci gouvernement bi di ko jox gaay bañ ko demee laaj Amadou Ba dafa ne mukk àndul ak Amadou Ba donc ñuy ñu bëri wax Amadou Ba moo tax Macky Sall sax séparoo ay nitam Boun Abdallah Dionne séparoo Mame Mbaye Niang séparoo euh, euh, Aly Niang Ndiaye séparoo ñëpp ñëpp daw <laughs> ñëpp daw léegi nag comme moom bëggul perte ay nitam Macky Sall bëggul perte ay nitam ndax Amadou Ba bi nga xam ne moom trop xoloon na fi Amadou Ba te xam ne gis nga affaire yi ne ko bandum la de ne da ko bandum <laughs> dañuy reyante comme Amadou Ba Macky Sall toroxaloon na ko fa fam ne tot yóbbu ko au frigo Amadou Ba loolu da ko màttu denc ko di xaar waa ji léegi nag loolu moo tax fenkat yi dem xamal ko ni gis nga Amadou mi kii dina la bu bu ko yàlla may nguur tey dina la ñuus ba nga saw sa tubéy Macky Sall bu mu xamee ne Amadou mii am na lu mu ko dencal loolu moo tax Macky Sall taxaw moo ak ay nitam di xeexaat Amadou Ba ñoo moo tax léegi comme ñoom amatuñ dara amatuñ benn candidat ña ngay biir loolu moo tax fu nekk nii ñay def lu bañ ay élection yow ñu wax la nga téye Ousmane Sonko yemoo foofu nga naan ay ngay wax ay waxu reculer élection sa waay da ngay kaay leen kaay leen ah lii mét lii mujj naa métti li ñëw leen ñu bëree lillaahi war ñëw leen ñu bëree lillaahi war a suuli vingt cinq yegg si na kaay leen ñu bëree ku mën na def kaay leen ñu bëree wax ji jeex na wure ba wër na këng waxu mag dem dañ dañ tàlli lu waaye doon jaay tey mu lamb dama ne ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñu leb seen fan Amadou Ba ñëwal ñu warax say fan yow Macky Sall ñëw leen ñu warax seen fan billaay wallaay ci midi ñu seen fan ñëw leen te daw amu fi bu dinañ leen loqate ba ci seen pooju ndey yi indi leen le vingt cinq ñuus leen ba ngeen saw seen tuba yi ba ngeen saw ci seen belefete yaay yi dinañ leen ñuus ba ngeen set ne leen ñuus ragg leen ba ngeen ne coccu yow Macky Sall yow Amadou Ba te di ngeen ñëw nag doo leen daw de am dama ne kenn du fi reculer élection yi ñoo fiy taxaw ñu seen teg yéen ba mu saf sàpp élection dina fi am tey dina fi am ci nii mbaa ci ne na leen leer le vingt cinq munu leen a muus ak a waane ba daw commission parlementaire ak parlementaire ak bunuwanteer la ci yéen bu bun bunuwanteer la ñam dama da ngeen di ñëw da na vingt cinq dañ koy ñoxante dañuy noqante danañ noqante ci urne ba mu saf sàpp pour muy leer incha allah donc nañ nañ taxaw nag amul reculer amul arrière dama ne yéen a ko woote ñëw leen yéen a ko sombi te di ngeen ko naan yéen waa APR yéen waa benn bokk yéen a ko sombi yéen a comploté di ngeen ko naan amul daw wéet gore wéttul ko ga kaay leen ñu bëri kaay leen futteeku leen ñun pare nañ ñun pare nañ de <laughs> daw moom amu fi daw daw amu fi de daw amu fi de waajal leen ko nag léegi Amadou Ba dugal euh, lu mu tëdd si en tant premier ministre ma ngay a daw <laughs> yàlla du nit <laughs> yàlla yàlla du nit de da ngeen di mun a comploter rek mu mun a fen ba bu ñu demee ba gouvernement di accepter ah ñuy ouvrir ay enquêtes démb commission d' enquête parlementaire ci ay juges toog taaj ay juges ah démb lañ ko accepté tey ñu ñëw rédiger rapport bi di woote bu ko fast track ay reporter leen ko gaaw leen dimbale leen ma di màtt ci suuf di ëf ci kaw. Macky Sall bu nekkee ci kaw non xalaatuma reporté bu jaaree suuf di ëff reporté leen ko gaaw reporté leen ko Amadou warkat la reporté leen ko. Eh, eh, eh, yëg nañ lépp matt bi ci suuf ak ëff bi ci kaw bokkuñu dama ne ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñu ñu ñafante ko ñëw leen ñu ñuusante fii kenn mënu fi sàcc ay élection kenn kenn mënu fi sàcc ay élection laa la wax élection boo koy sàcc day fekk mu jege day fekk ngeen jegante. kii am ay 17 kii am ay 21 nga mun a sàcc mun fat fat dama ne kenn du ko fi sàcc gars yi pare nañ loolu moo wóolu leen Sonko Sonko mi génn avant ñu koo jàpp mu wax ni dinañ ko jàpp wax lépp ku def vidéo yooyu xamoon nañ dinañ ko jàpp kon kooku wóolu ko ku la kooku sunk yàlla la àndal te yàlla Sonko la àndal Macky Sall mënul sàcc élection yi nee naa leen xool na ko ci saayir xool na ko ci baatin Macky Sall xërëm rek la gëm fu mu dem sëriñ yu mu mus a dem nee nañ ko dañ lay dóor dinañ la noq balaa midi dinañ la ñuus ba summi seen tubéy yow sa sa mbër moomu sa mbër calki boobu xam daa handicapé mantal donc moom xam na loolu lu tax Macky di wax waxu report bu ko wóoree ne buñ demee élection da koy sàcc day fekk ngeen jegante kii nekk asamaan ki nekk suuf kenn munoo fexe ba sàcc munoo fee sàcc a sàcc ba tëb ci suuf si naaw ci eh, asamaan si yëg ci avion élection day am Sonko mi def limi def bu baax dama douze heures carte ya donc nous wa APR yi nak infiltré ñu na non les xam ngeen ne dañ koy sacc fu sont koy fu Ils koy dama ne wat bayam bi wat ndayam bi élection élection Sonko mi boko xolé xamne Ils ne di ngeen gis lu ngeen musul gis élection yu <laughs> Sonko dégg wax na leen ko ne leen dama am expérience ne len élection expérience la di ngeen gis ay cellule yo xamni dañ ko Sonko da koo waajal yoo xam de contrôle gaay yi dinañ taxaw ci bureau de vote ya dinañ fa fess tap sénégalais ci bopom dañuy voter taw kenn ñibbiwul seen kër lool lañ nar ngeen foog ni li dajale pour ay ñew voter dem sa yoon la dama ne ñun ñoy voter toogaat ci école ya tok ci bunt ya di waxtaan ba 6 h kenn du ñibbi Sonko paré na lepp kenn du voter ñibbi ñepp da ngay voter tok xaar keneen voté toog xaar ñëpp génne këyitu APR wane ni moom ki nga xam ne moom mooy Amadou Pitaba mi ngi nii këyitam baa ngi Amadou Pitaba ngi nii ku génn Amadou Pitaba ngi nii Amadou Pitaba ngi nii ñëpp dajale ko ñëpp toog seen buntu toog ci buntu école ya ñëpp nañ toog ci buntu école ya lu am lu yëngu lu ñuy jéem a sàcc wala jéem a buure kooku li nga xam ne mooy représentant Pastef wala représentant euh, coalition Ousmane Sonko woote gaa yi def réplique donc bii bokkul ak beneen. bii ñoo koy voté ñoo koy veillé ñoo koy surveillé ñoo koy voté ñoo koy veillé ñoo koy surveillé teg foofu ataaya teg foofu meew di ko meew dugg voté génne bu Amadou Amadou Pitaba boyalee ko furnu ëppee ko toog di xulli xulli xulli open eyes lugtee ceene xulli te na pat xam ba ca <laughs> donc bii sàcc ko du yomb dama ne sàcc na du yomb na foo koy tëgg a jafe dama ne <laughs> loolu boo leen yaakaaree ni ñun pare nañ wa wax wax nag yow bokk yaakaar ñoo dugg ci non da koy sàcc da ngay fen de sàcc sa baay boo gën a yomb sàcc élection yi dama ne yii bokkul ak yenn yii mu ñëw Macky Sall sàcc sa baay wala sàcc sa yaay yóbbu ko ca hôtel ba moo gën a yomb sàcc élection yi ku la koy gëmloo day kàcc yii <laughs> yii sàcc ko di sàcc sa yaay gën a yomb Macky sayay sàcc sa jox ko Amadou Ba moo gën a yomb ñëw daan day sàcc élection yi ñun ngeen fiy fekk ba dee ñun ñun amuñu tey wala amuñu bàyyi da ngeen yaakaar ne ay dox lañ yoo xam dañuy toog nii di xulle sax fu muy jaaree fan la koy jaarale fan fan fan lay jaarale fan fu mu koy jaarale fan la koy jaar pour sàcc ko <laughs> xanaa ko koy sàcc daa fekk muy nalaw mus ngaa gis ku teg ay bagages am nii ñu koy sàcc mus nga koo gis sàcc boo gis guddi lay génn di di di di yoot di kii mais kuy nalaw noo ko sàccee ma jël sama portable teg fii di xool wala ma jël sama portable téye noo koy sàcce nan nga koy sàccee <laughs> ñun ñuy toog daas fanaanal dóor toog xujju di xool kenn du ñibbi kenn du ñibbi ba 6 heures suba ba 8 heures 7 heures du matin ba 6 heures ba bureau yi tëj kenn du ñibbi noo koy sàccee bu ma jëlee samay mbir teg nii téye ko noo koy sàccee xanaa ngay fàqati sàcce élection <laughs> yéen da Macky ko pare na lépp boo ko xool Sonko xam ni kii sa waay dépassé na jëmm nit beneen melokaan la taxawe résumé na ba résumé lu ngeen gisul lu musul am lu ngeen xalaat non Sonko ngay déglu naan waa be kii am na sax ñuy wax naan waa APR yi nee nañ kii artificiel la quoi lu mu ko lu ko waxee sax euh, xaw ma lan euh, xaw ma technologie artificielle xaw ne ñoom gëmuñu ne parce que nee nañ lii mënul ne ñoom xam la léegi nee nañ euh, euh, waa APR nee nañ euh, Sonko lañ teg nii am keneen ku wax ñu dugal ko ci gémmiñ gi xaw ma ñu ko waxee non non non nee nañ loolu la <laughs> parce que lii mënul ne nit boo xam ne lépp nga gis dañoo tiit moo tax démb la waa ñu ne intelligence artificielle la loolu la ñu wax ñoom ñëpp nga ca seen groupe yi waaye mënul nekk léegi mënu ko xam li intelligence artificielle la ña nga yuuxu ñoom ñëpp ñoom ñëpp tiit <laughs> fekk waa ji intelligence yàlla moo ko def ci moom du artificiel de <laughs> original am na yeneen vidéo yi ñoo ngeen tiit lëpp la wax ñu naan inte ñi nga ca ña ci seen groupe yi di yuuxu waaw ñun moom dee nañ ba noppi ñoom ñëpp a ngi bind seen testament ñoom ñëpp a ngi bind dee yàq na wuy sama ndey la ñoom ñëpp ci kaso ba lañ jëm laay lay la laa waaye li intelligence artificielle la ay waaye Macky sànq nañu waay waaye wuy sama ndey yooy man de ku nekk ngi bind sab testament ndànk rek ndànk bu leen yàkkamtee am <laughs> kenn santu la ngeen bind seen testament yéen fi nekkoon di ñuusaate di reyaate di yónne ay ndëb yi ñuy tiire doomu aadama non non non ndànk rek jarul daw jarul mbëkkante jarul bind testament toog leen rek toog leen lii commencement la commencement la yeneen vidéo dina ñëw ngeen tiit mi ngeen xam ni kii nit ma Ousmane Sonko romb nay nit malaaka dambitu malaaka la Ousmane Sonko dambitu malaaka la dambitu malaaka lii saison 1 la rek ndànk rek ndànk doucement bu leen bëggante <laughs> par force na ñëpp génn élection by force élection by force élection by force la <laughs> tax ñuy daw la tax ñuy daw di wax ay waxu report rek golo gololu dañoo tiit de élection par force élection par force élection par force élection par force ñëpp élection par force force doole mbaam xam ngeen ku moom évange moo tax ngeen tiit di wax ay commission parlementaire rek di jënd ay gise di fen ak ak di teg ak monté dama ne bu ko wóor day sàcc laa la wax kon lii yëpp du ko ci fekk <laughs> sàcc sàcc sàcc ci kuy nelaw sàcc ci kuy nelaw sàcc ci ku def tëpp bàyyi sànni bagaasam sàcc ci ku sànni ku sànni la sàcc kuy nelaw lañuy sàcc waaye ku toog di veillé nu xujj du xulli jël mbiram téye ba mu dëgër këcc fooy jaar <laughs> sàcc sàcc ay waay <laughs> sàcc deux mille vingt quatre sàcc vingt et unième siècle sàcc sàcc eh? <laughs> fu muy jaar Muyin, yéen yéen wér ngeen kon nak sama gaay comme nu ma ko waxe ñu ku gis Amadou Pitaba wax len ko mu dalu yaay ma ngi koy wër ku gis Amadou Pitaba fo len gis Amadou Pitaba ne la ko mu dalu yaay ma ngi koy wër lu day ni conseil des ministres kenn gisuko ku gis Amadou Pitaba ku mu romb parce que mu na la romb nak <laughs> Amadou Pitaba mom suba mu na la romb day ñaari nit la andal ñaari nit ku ko gis moom ak ñaari nit na ko ne dem uyu Macky Sall képp ku Amadou Pitta Ba romb moom muy euh, yappax lappax lappaxi di mel ni ku feebar ak ñaari nitam ñaari golom na ne na nu mu na wuyu Macky Sall na ko wuyu ji te bu mu yóbbu lettre ba nag <laughs> bu mu yóbbu lettre bi voilà. Euh, Zena commission d' enquête bi parlementaire pour mun a reculer élection yi la mooy. Qui nga xamni mom moy mooy collègues vidéo buma def ah. commission d'enquête parlementaire bi euh, nga Karim Wad Pour dougal pour porter plainte conseil constitutionnel juge léegi démb lañ ko accepté Macky Sall ko tay ñu juge conseil constitutionnel yi leen def ci kaw loolu nak dañ milliard jijoy, ki nga Cheikh ak Cheikh Tidiane Koulibaly ku milliard dañuy def ñoo ñoo faute grave bu dañuy affaire ya démissionné wala ñu leen ci conseil conseil constitutionnel bu conseil constitutionnel bu amul ci ah, ni ñi def parce que conseil constitutionnel gérer ay élection wax résultat yi donc loolu lañuy ñuy jéem a waajal gën naa ko développé ci live mu def léegi léegi même pas une heure temps après nga seetaan ko résumé naa ci lépp lii dañ doon feccali rek waaye di leen wax ni ku fa gis Amadou Wuri Ba bu Pitta Amadou Wuri Ba Pitta Amadou Wuri Ba Pitta ku ko gis ci dëkk bi moom ak ñaari golom yi muy àndal moom ak ñaari taxawaalu katam yi ne ko mu wuy Dakar urgemment urgemment ne leen ko mu wuy ji urgemment mu wuy ji urgemment directeur de campagne am mu wuy ji urgemment directeur de campagne am Amadou Wuri Ba ku ko gis dimbale ñu Amadou Wuri Ba ku ko gis nee ko mu wuy ji directeur de campagne mu wuy ji démb conseil des ministres moom rek a fa manqué mu wuy ji lu ko téye mbaa tànk yi mettiwut mbaa tànk yi ruuxut mbaa amul biir buy tàññ mbaa biir bu dawut <laughs> ndax ndax lu day ni premier ministre ñuy def conseil des ministres nga nekk ci biir dëkk ba ne ta nga de kukum kukum tak ku ko tak takk leen ko takk leen ko delloo leen ko jàpp leen ko takk leen ko delloo ko ndakaaru delloo leen ko ndakaaru ne leen ko jabaram yi namm nañ ko takk leen Amadou Wuri Ba ku ko gis na ko takk na ko takk ña ak ñaari takk leen ko ba mu ngeen delloo ko wuy ji na wuy ji na wuy ji dëkk bi dañoo am premier ministre day wuy ji nag na wuy ji na wuy ji nee leen ko mu ñëw ndakaaru dañ ko soxla urgemment nee leen ko mu ñëw ndakaaru dañ ko soxla ko soxla wuy ji voilà na wuy ji dañoo sonn ci taw bi nee na lànk ne du ñibbi Casamance ñu war nga undaalu dem bundu pare lu undaalu Amadou ñibbi ay waay waay réew mi metti na rek ci gis naa ko léegi dégg naa vidéo ma ngay France 24 di rek di fen di duule ka dajale di dajale Amadou ñibbil ngir yàlla Amadou ñibbil lillaahi wa rasuuli ñibbil Ndakaaru ah réew mi metti na mu ngi yore këyitam nag ku ko gis xottil këyit ba ma nga yor këyitu démission ba ma nga yor këyitu démission ba de mi ngi kayitu démission ba nag dafa fas yéene bëgg a démissionné <laughs> premier ministre ba xotti leen fo xotti leen feuille ba ku ko gis xottil feuille ba koo gis ak démission xottil feuille bi takk ko delloo delloo ko bu buñ koy woo di ko woo pour def ko premier ministre ba fii ba fii ndombalu ko takk sol costume mu ngand triple XL di waccax waccax yi mel ni jaan waccax waccax yi di kontaan di <laughs> di siñu bañ kon talool loolu démb kese la kon na na ko assumé na ko assumé ne na ko assumé buñ kaw woowee fii mu takki ndomb ca kaw mel ni mbër fii yëpp mu ndomb ko diwoo saafara bu xeeñ di mel ni tey wëndaalu dugg taw ñëw ko primature ñëw am ko di xulli waaji waaji ne ko premier <laughs> xam nga ni waa ji da doon tëggal maamam donc comme moom loolu doo ko assumer mu neex ko donc na ñëw nee leen ko mu ñëw assumer premier ministre am te ngeen xotti feuille boobu mu yor noonu di bëgg a demander démission naan mënuma euh, dajale ci xaw ma lan candidat candidat candidat liggéey la ah mënuma nekk naik nekk dama ne hey kaay kaay wuyul sa patron wuyul sa patron wuyul sa patron sa patron nga xam ne dafa dafa am feebar sa patron dafa dafa amee rab mu jiital la ngay tëñëx tëñëx xamoon nga ni dina ñëpp sa maam de sa patron nga xam ne feebar sa patron dof la sa sa sa patron criminel la bandi bon na soxor na <laughs> kay dof dof

le Sénégal n'est pas pour le moment dans une situation où il faut penser à un report d'élection Quand moi, je veux reporter <laughs> ah pas trop sa patron ngay ngay tontu nii yow sa patron dina ça sa baat sa patron ngay tontu sa patron moo bëgg reporter de <laughs> mu naan Oui, en ce moment là c'est un moment euh, dans une on est dans une situation où il faut penser il ne faut pas penser à un report d'élection je ne pense pas à un report d'élection euh, nous, voyons certes que des acteurs politiques peuvent se prononcer euh, euh, pour une décision de justice donnée, mais la charte fondamentale du pays doit être respectée dans toute son essence. <laughs> mi ngi lay dégg nga wax ak man report peuple bi report Ousmane report sa kilifa googu dil ak gars ak PDS pour def report wax ak moom ñun suñu yoon ci ba suñu yoon ci patron def report kenn donc nga wax un possible report agité ces derniers jours mais dans un euh, rappelant que

ñun bu ñu deret laa àll bi nga toog toog fii di di di di ko sànni ay kàddu di ko sànni ko benn bennal demal nga wuy ji ko lii li nga wax nii ci télé yeeg ci ci ay TV5 ak yooyu mënoon nga dem démb ci conseil des ministres wax yi ko fa. yaa ngi ndakaaru mi ngi ndakaaru yaa ngi Sénégal mi ngi Sénégal ngay wër ci dëkk yi di wëndaaloo ko tambaambaalu sa ñaari nit demal Dakar nga tontu ko. lii nga wax nii démb war ngaa jëm jiite conseil des ministres yaay pres yaay pres yow yaay premier ministre nga daw ñëw teg. tëj leen seen micro yi képp kum ñëw ci yow moom Amadou Pitta Wuri Ba bii di wëndaaloo ko taxawaalu képp kum ñëw bu ko dékk micro tëj leen micro ko mu wuyu ji ne ko mu leen seen micro yi journaliste leen seen micro ko ubbil micro bu leen ko ubbil micro munul nekk ci àll bi nekk premier ministre nekk ci àll bi di wëndaaloo ko taxawaalu ak day kër jàmbur yi di taxaw ñu ngeen ko ubbil micro mu naan day tonton te waa ji na ko wuyu ji na ko ji na ko wuyu ji waajee ko jiital na ko wuyu ji na ko ñu jàmm tëj leen micro yi journaliste yëpp tëj leen micro yi bu leen ko ubbil micro muy ratatati amee lu muy wax na ko wax waaja waaja ngi ndakaaru te àll bi Touba dàq nañ ko képp ku ñëw sa dëkk nañ ko dàq nee leen ko mu dellu Dakar nee leen ko mu dellu Dakar nee leen ko muy dellu na dellu Dakar ñaari jabaram a ngi fa di ko xaar sonn nañ waa région yi tëj leen région leen région yi ko génne ko foofu tëj leen région te ngeen xotti démission boobu mu yor fooy démission bi xotti leen ko tëj leen région yi ñu ngi leen koy ñaan bu leen ko may dara

Euh, mon double casquette de premier ministre et de candidat à la présidentielle je suis confronté à la question de l'utilisation des moyens de l'État pour ma campagne électorale Je une préoccupation majeure des citoyens et de l'opposition sénégalaise je comprends bien que l'on pose cette question je suis en train de réfléchir sur le sujet je suis prêt pour une démission d'ailleurs je compte très prochainement m'approcher très prochainement m'approcher du président de la République Nous tax approché <laughs> il compte très prochainement s'approcher du président de la République euh, sur ce sujet pour une démission. Je ne ferai rien qui pourrait affaiblir les institutions du Sénégal. Cela ne viendrait jamais de moi. Il faut que nous lui affaiblir nee na du def lenn luy affaiblir de la République cela ne viendra pas de de de lui. kan la kon <laughs> kon Qui koy xaar koy xaar Dakar de koy xaar bu ko kii day mën a wóor rek kii bu ko kii di ngeen fi dégg na Macky rey ko wala dóor na kii jam na ko wala euh, posé na ko wala assassiné na ko bu xam ñuy wax bu buñ nar a rey dama ragal moom mii la Macky Sall nar a rey nag moom mii parce que ma ngi koy jam baaraam ak di ko pointé ay duma copier collègue <laughs> yóbbul ko démission ba yóbbul ko mu naan très prochainement ñun nañ concentré wu focus ñu ngi ci combat bi de ñoo moomee faa nag Élection de Am, Amour reculé, amour Daw, amour reporté. Élection le 25 février 2024. Inch'Allah. Par force. Par force. Bugu bere. Bugu bere. Aïe, ça Son correct. Maman me va Rang. Kak, tu y as l'aïdal. Bout. Aïe. Bout. Aïe. Bout. Bangu qui n'y a l'ou la bangu vertal. Zoom. Soul. Aïcha. 2024. Focus. dara duñu divertir nag ñu ngi ci ñoo ma me vaane gars yi ñoo ma me ay ca ay ca ay ca booloo na dëgër na dëgër point ñu déglu ko yeneen vidéo ngi ñëw yeneen <laughs> borom xaw walan artificiel <laughs> liggéey la ngeen di comploter liggéey la ngeen di comploter waa ji di liggéey ci xelam ngeen defa di complot rek di complot tey nag affaire ba jeex na wëre ba wër na këng da ngeen mën a complot rek yeneen a ngi ñëw de <laughs> ilaha illallah tey waa ji da ngeen doon mën a comploter rek ak a defaree pexe waa jay naaw jërëjëf <laughs> Sonko gars yi def seen tax yëpp ña ngi ko def ay ay pax naan fii la nar a jaar waaye eh, eh, eh, yow yow Mame Mbaye yow indil ma xob yi Mame Mbaye ñu def seen pax def ci xob def ci xob ya indi yow yow Adji Sarr yow indil ma garab indil ma branche yi dóor foog ne Sonko day ñëw suux mu ñëw ba ci kii rek ñuy xool na ah, dina daan rek mu ne foofu foofu génne laa de naaw pat pat pat pat ñu ne wuy sabar depuis démb dañoo xam <laughs> depuis démb dañoo daaru waa ji mujjee naaw bàyyi leen fa pat pat romb leen ci kaw ñuy xool na yow yow <laughs> noonu noonu la mel moo tax ne ni ñu tiit jàq jaaxle ay élection day am par force nag incha allah te rek ngeen dee da ngeen di mën a comploter rek ah <laughs> woote yàlla gën woote nit ki yàlla du nit incha allah kon le combat continue nañ taxaw de gars yi kenn du arrière kenn du reporté taxaw ba mu saf sàpp ñun ak ñoom élection day am par la force force force Amadou Ba buy am ay diis pour cent ay sept pour cent nan la ko nit mun a sàccale ay waxi dof ay waxi naxasa xanang toog ba kekk boo xam ne tekk woo dara munoo gañe sa koñ munoo gañe sa kër am sept pour cent nu ñu lay sàccale candidat Ousmane ko dem am quatre-vingt pour cent wala soixante-dix pour cent nan lañ lay sàccale wala <laughs> ñu bugg a dugal ci xel na loo sàcc élection nu nan la nan fu ñuy jaar ku dugg voté loo ko ku dugg voteloo ko ñun nokk ko bureau nokk ko koñam nokk ko parcelle nokk ko Grand Dakar nokk ko ñaari tali nokk ko Dakar nokk ko Diourbel nokk ko Matam nokk ko Podor nokk ko Kaolack nokk ko Saint-Louis nokk ko Tamba nokk ko Kédougou nokk ko Bandafassi nokk ko Saraya koo koy noo koy sàccale bu ñëwee jàpp ki yi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire ko 10 0 noo koy sàccale noo koy sàccale ah rang bal yi leer nañ bii leer nañ taxaw fee dóor dóor amul orzo amul dara militaire dóor ku boo xam ne kañ ci poto bi dugg ci biir noo koy sàccale noo koy sàccale ay waxi dof bu Sénégal jàppee ko dawaa dóor ko dix yoo xam ne fële la waa ji jóge bi dugg kañ nan la koy sàccale waxi dof waxi dof buñ ko ñuusee partout kenn mun ko mën a saay waxi dof waxi dof booy sàccal da ngay sàcc da ngay sàcc ñuy nalaw kuy nalaw lañuy ñuy sàcc waxi dof waxi dof bi yu leer naññ yu leer naññ Orzo amu fa dara amu fa taxaw fële dóor ku mu mille cent mètres mu dugg ci biir caax yi ne këng noo koy sàccale waxi dof waxi dof te noonu lay demee dinañ leen noq noq yi leer naññ dinañ leen ñuus ba ngeen saw seen tubéy dinañ jàpp Amadou Ba ñuus ko ba muy saw tubéyam ba futti ko ba su suufu tubayam sax tooy dina leen ñuus ba duñ ko dolleeti ne leen noq noq noq noq noq ba duñ mës a gis loolu ay bureau de vote yoo xam ne cent pour cent la candidat Ousmane Sonko di am cent pour cent cent pour cent quatre vingt dix pour cent ñu noq leen lu musul am ci ay élection quatre-vingt-cinq pour cent Sénégal buñ ko orgueil ba léegi quatre-vingt-cinq pour cent lu ku gi ku gis tiit dama ne bu leen ñu fontoo sàcc day fekk nga sàcc luy jege wala lu xaw a nuroo ñuus yi leer naññ lañ leen nar a ñuus ñuus musul am ci kaw suuf ñuus ñuus yoo xam ne musul am Sénégal waaye musul am Afrique kon nay leer <laughs> loolu sax ci mënu fa am ñun ah le combat continue les gars on gagnera incha allah leer na naññ ne ni moom lu ñu doon leer na amul lenn lu ñu fay gisati ñoom ñoo tiit ñoo jàq ñoo jaxle naan ay commission parlementaire ay fii la xar mi jaar ay wa ñoom ñoo tiiɗa continue hulli open eyes look ceene hullitana pat xam mbaca bu leen dugg si seen nak. nag amadou ba ku gis nanga ko takk delloo ko dakar ku ko gis nang ko takk delloo ko dakar ku ko gis nanga ko takk ñu ko dakar delloo len ko delloo len ko dakaru nee ko patron ko patron am leer voilà ñun ñu continuer nak kenn tak bu lal, deret laal kenn tak bu fa kenn atte bu fa kenn bu leen bu leen leen lijjanti nañu reyante ba jeex takk takk waa ji buy taw bu ñëwee seen kër bu max leen ko mu génn région bu mu ñëw noq leen ko mu génn Amadou Ba mi ngi daw waaja ku mu ñëw ñuus ko mu génn na génn na génn na na na wuy ji na wuy ko mu génn région bu mu ñëw yuuxoo leen ko waa Touba ni ngeen ko yuuxoo ma ngi wër nag fu mu dugg yuuxoo leen ko ne ko na wuy ji na wuy ji ñuus leen ko mu génn bu mu làqatu amul fan fu muy làqatu bu ñëwee kaw ñuus leen ko mu génn na génn na wuy ji voilà pour muy leer peace and love and I'm out information bu ñëwaat rek dinañ ñëwaat incha allah le combat continue repos oui combattant oui patriote oui un un deux